xam ni dafay baax loolu moo ci sama gars yi comme ni ñu ko defee jeudi bu nekk ci seen émission bi ngeen xamante ne yàlla nga tàmmul seen bopp di au cœur des navétanes tey nag ñëwaat nañu stade Iba Mar comme ni ñu ko defoon bële passé tey nag waa zone 7B ñoo ñu fi invité. du ñu présenté benn match bu neex si diggante équipe bi nga xamante ne moo di yaakaar ak équipe bi nga xamante ne moo di Daaru Rahman Daaru nag ren jii nag moo nekk favori si zone bi ndax Daaru dañoo génne xaalis bu bari jënd ay joueurs joueurs yi nga xamante ne ñoo mën si zone bi ñoom la gaay jël dajale leen ndax ren jii nee nañ ren jii dañoo bëgg a jël li nga xamante ne mooy titre champion bi nga xamante ne mosuñu koo jël wala tey jii nag ñoom daal nee nañu dinañ def seen kéemtalaay kattan ba am seen objectif xamante moom la ñu visé jël ko. wala tey jii nag supporters yi ñoo nañu fees fi dell waa Grand Yoff ñëpp maa basi ñoo fi nga xamante ne moo di stade Iba Mar léegi sama gars yi ñuy def dañ leen di bàyyi ak papeex ki nga xamante ne moo di Modou ñu wan leen li nga xamante ne moo di dugg ñaari équipe yi dugg si biir vestiaire yi ak li nga xamante ne moo di entraînement yi sama gars yi ñu dem ñëwaat zéro la machine deux zéro la naam na naam na comme ni nga ko waxee rek da nga ne suñu benn waa mais benn waa si football moom amul liggéey loolu liggéey nañ loo taw loo loo xamante ne suñu ñëwee tey dañu war a ñëw wane ko si terrain bi te incha allah benn waa boobu nga wax loolu ay wax kese la mais lépp si biir terrain ñu liggéey ak suñu coach bi loolu war nañu ko tey suñu ñëwee suñu yeggee seen kaw incha allah benn waa boobu dina deñ mais waa Grand Yoff yëpp dañoo jàpp ne ren ji Daaru Rahman moo nekk équipe nga xamante mooy favori bi ndax recrue yi mu def euh, yow juste yow la ngay wax ci loolu waaw dëgg la ñoom suñu ko jàppee c'est que ñoom dañ ko gisa seen bopp ndax tamit mooy loolu ay gars yi ménager wuñu ben effort pour jéem a def ASC moo loo xamante ne ay effort yoo xamante ne pour yóbbu ASC foo xamante ne mooy loolu ndax daaru buñ koy seetlu moom il paraît que stade demi finale kese la Moussa yem quoi te incha allah recrutement yi def ni ñoom mënoon nañu ko ñoom am nañu objectif pour dem jëli coupe zonale bi. waaw tey ñoo pour gagné rek si kàttanu yàlla quoi. parce que mais gars yi dañu indaale ah waa waa waaw ñu tamit dañoo a ñu doon leen trois parce 4 mois ñoo ngi juillet ba léegi ñoo ngi entraîné ma gëm naa bu nga xëppee si ñii du ñu day quoi. mais coach ma leen njëkk a wax tey jii la bon mun naa ni sama match la c'est tout un quartier et puis j'en fais partie xam nga joué naa fi def naa fi lu ne xam tey samay rakk ñooy joué ma ñëw gunge leen li ma am ci xel ak ñi ma àndal lu ñuy jox ñu boole ko def ko si ñoom. discours ñu ko accès si comme quoi que ni mënoo jéeg nit deux ans suivre mu lay dóor. les mêmes têtes nekk fi ñi nga xam ne nii bokkoon nañ ci défaite bi war nañu mën benn sursaut d'orgueil pour mën a faj loolu noonu.

wérum dañ match nul bee paase ñu dóor bii la ñuy xool confirmation lay doon rek mais daaw ñu ñëw jëlal coupe bi sama nekkoon meilleur gardien mais rek moom laa ñëw dam koy ñëw confirmer waat rek. jàppewuñu ko lu dul match ah après tout match la coach bi fii la ne woon dem na léegi ñun tam foog ñu prouver ni yaakaar équipe bu mag la parce que ñëpp xam nañ ko sax mais football mooy wax ci terrain ñun li ñu war nañ ko def rek. après affaire coach bi après la mais lii nii li war lañu war a njëkk a def mooy jéem a gagné yóbbul ndambil suñu cité après leneen li si des ay détails la. coach daaw yaa leen jëloon trophée bi. match. daje équipe bi nga xamante ne moom la ñëpp jàppee favori. yow tey match bi la nar a demee selon vous. non avant tout damay sant yàlla quoi. parce que ñoom ñoo jëloon daaw match kii bi trophée bi mais bii ma suma première année yaakaar mais li may ñaan souhaité sumay jour parce que ay xale yu ndaw laa yor ren. ay xale yi nga am nañ qualité ay carré monté la ñu mais maa ngi ñaan suñu borom bi mu may ma ndam ndam bi nga xam ne tey dañ ko liggéey parce que seul le travail paye te j'ai fait confiance mais jours en plus nag li si des nag bon si le terrain que le meilleur ok projet tey moo nekk seen journée nga gis nga gars yi mobilisation bi gars yi ñëw nañ équipe yi nga xamante ne ñoo gagné tey gis nañu ko muy HLM Grand Yoff équipe bi nga xamante ne moo di Daaru yow euh, say premiers ses premières impressions mooy lan. waaw ñu ngi saluer vraiment mobilisation publique bi ñëw wuy si euh, organisation zone 7 donc euh, di rafetlu du kontaan parce que lii ñëpp dañ ko doon xaar pour ñu commencer parce que difficulté yi am si année bi yëpp. donc il fallait que ñu commencer pour rassurer ñëpp rassurer supporters yi rassurer joueurs yi def nañ ko ci jàmm entamé nañ tey premier match bi te première journée bi te rafet na trop quoi kontaan nañu parce que journée bi on l'a fait sans violence aucune. sama gars yi gis ngeen ni match bi jeexee euh, di am njortu ne tey li ngeen proposé li nga xamante ne moo di au cœur de Navétane ne neex na leen ndax dafa nekk ñaari match yoo xamante ne ñaari match yu doy waar premier bi moo doon dox bi nga xamante ne moo di HLM Grand Yoff ak HLM Grand Yoff moo ko mujjee jël 1-0 si deuxième match bi moo nekkoon équipe bi nga xamante ne mooy favori zone B di Darou Rahman doon janook équipe bi nga xamante ne moo ko jëloon daaw di yaakaar Darou Rahman moo dóor ñaari bal ci benn. léegi nag sama gars yi ni ñu def dañ di bàyyi ak Pape Modou ak ki nga xamante ne moo di Papi mu jeexale image yi di jox rendez-vous si beneen match ak beneen zone jaa ngeen jëf.